chers internet de Dakarnet nuyu naa leen mbégte ak kontaante lay am di jàkkaarloo yéen saa su nekk tey nag ñu ñëwoon fii si yëmbal seet si suñu mama mama Selbé moom nag nee naa leen kenn dootu ko présenté waxuma Sénégal rek waaye àdduna bi ñëpp a ko xam mama nuyu waaw di wax auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim di sant yàlla bu wér di ko sant julli ci bi sangu sang yi sallallahu alayhi wa sallam di sant Serigne Touba Xaadim Rasul di gën a yeesa sama njébbal ci Cheikhul Xaadim Mbàkke Bàlla naan ko aslamtu nafsi ilayka yaa xaadimal maxtaar di ziyaara Sëñ Muntaxa Mbàkke lépp lu may wax damay ziyaara Sëñ Muntaxa moom mi nga xam ne moo fi toog a Cheikhul Xaadim fii sa àddina bi mhm. di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ah duma mës fàtte kenn ku nekk am nga xarit ci àddina muy sama benn xarit bi muy sama wóllëre bi mu ne Serigne mustafaa si di ko ñaanal mu gudd fan ak wér-gu-yaram darajey Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa a waaw di ziar bu baax a baax a baax a baax man Selbé maa wax loolu waale amul jot pour yónni nit pour mu yàqal Sidi Diop dëgg la de Seydina Muhammad xoolal benn yoon ñaari yoon laa gis Wally Seck ak bët xam nga damay gis Wally di ci wax mhm. gis naa fi Wally ab jinne téye loxob ndeyjoor bi di ko gide hmm? laajte naa bi ma ko gisee ba pare ba wax ko ba pare la am ku ma laaj mu ne seen famille seen maam dafa amoon jabaru junne mm. loolu man teguma ko foofu lu ma yàlla woon la ma wax ko ku gëm xayrun ku gëmul xayrun man su ma neexoon léegi damay luye oto balaa bët set dinaa gis Wally Seck mm. Sidi Diop mi ngi toj de mm. waaye Wally it mi ngi toj nekk ñaari xale yoo xam ne ñoom ñaar ñëpp ñëpp a ngi def lu neex mm-hmm. dégg nga Wally mi ngi def lu neex Sidi Diop mi ngi def lu neex Wally amul jot waaye loolu taxul may wax ci moom mm-hmm. pour dem këram di ko di ko woyaan loolu taxul ma wax ko li ma gis la suñu borom moo ma ko jagleel. maanaam tey jii Sidi Diop macha allah xale la mën na woy yaa ngi dégg. Mm-hmm. mën naa am ab saay-saay moo jóge fee rek ñëw yàqu ko. waaw dëgg la ndax loolu. mais buñ ko ji ñu àlli. waali non waali moo mag loolu. dëgg la man c'est pas parce que damay dama jël défense waali. Mm-hmm. man damay déglu musique Sidi Diop. Mm-hmm. te jii boo yéegee ci kaw ci sama waañ hmm? mi rajo baa ngi fii sa indi naa ko bu la neexee ma tegal la léegi euh, woyu Sidi Sidi Diop fii ci biir néeg bi dama koy déglu bu baax am na benn bis mu dem ci euh, ci euh, fële seen TV ma dégg mu naan Selbé moo ma seetal maa ngi ko nuyu au passage mhm. parce que xam naa lépp daal amul problème mais yàlla seede na ko bu waali du def loolu waali moom wala expérience am. Mhm. dépassé na loolu. c'est que ñaar ñi mën naa ne dëkk bi ñaar ñuy ànd la ñuy bañ a gis. ñu bëri yàq moo leen gën a euh, soxal ni ko defar. sii Sidi dafay fekk Wally fi muy fi muy wooye. waal jox ko micro muy wooy. Sidi naan ko bëgg naa la. ba Wally naan ko sama ah? rakk bi. ma waaw waaw waaw nañ baa jaxase bi. yow Sidi Diop bul dégg waxu nit ñi Wally Seck aussi bul dégg wax nit ñi yéen ñaa def leen diwo. ngeen ah. bokk wooy man loolu laa bëgg pour wane na ay Baye Fall ngeen. Mhm. ñoom ñëpp ay baay Fall lañu bu leen kenn jaxase. Mhm. parce que gis nga ñi ñiy dañoo mëne boor bu ne. bu tey ñu ne Selbé moo baax bu subaa ñu ne yow mii yaa baax bu ginnaaw subaa ñu ne kii moo baax yooyu nañ ko bàyyi tey yemale doomu aadama yi ñoom ne ay xale lañ seen avenir des na lu bare bare bare nañ ci wax lu rafet moo gën ñuy jaxase naan nangam ak nangam ak nangam yooyu amu fi mhm. nañu nañu yemale te bàyyi ceytaane gi ñuy def waaw loolu lu rafet na lu rafet la waaye tamit nag euh, lu rafet daal lu rafet daal la waaw aar bi yaatu na ku ne mën ngaa béy sa waar waaw loolu moom dara newu man rafetlu naa ko rafetlu naa ko trop waaw loolu daal kontaan naa ci man ma ko nen lu rafetlu ko daal uteeg yéen gars yi xam te nii doon yi sa woote Sidy ñi ànd ak Wally man moom ñoo ñaar ñëpp laay déglu waaw musique la moom kenn ku ne daal na béy sa waa aar yaatu na ah, loolu moom lu baax man boog ni ma ko gisee sama xalaat bu gàtt quoi ndax euh, Youssou ak Thione sek donc papa yi Wally Seck la ak papa yi Sidy Diop seeni doom daal kon ku woy sa woyu papa nag wàcce nga man boog ci ni moo ko gisee quoi wax dëgg yàlla ñoom ñaar ñëpp ay jeunes lan ah wax dëgg yàlla ndaw ñi soxla na leen donc man daal loolu daal laa gisee daal rafetlu naa ko daal. dama yaakaar ne tamit dafa am ñoo xamante ne si ne euh, danoo nekk ci Sidy Diop ba pare di ànd ak Wally quoi ba pare léegi après loolu moo leen yaatal ndax man ki man mi li ma si gën a jaaxal sax euh, loolu nan la mën nekkee pour Wally Seck euh, génn vidéo bi tey après Sidy Diop tamit daal koy génnee man loolu loolu tamit jaaxal na ma bokk na ci li ma jaaxal ba tax na li ma gën a yaakaar li li nga te ne yaakaar naa ko mooy Wally Seck bi muy génne bi muy répété son bi. Euh, dafa am ñoo xamante ne si ne dañ doon bàyyi xel pour ne Wally lii la war a génne après léegi ci la ko Sidy Diop Peulh la koy génne. waaw loolu nga wax noonu mën na cee nekk mais man ci sama gis-gis man moom jàppee wu ko lu aay jàppe wu ko lu aay ndax euh, Wally Seck war naa mën a way way nduur Ndour euh, Sidy Diop war naa mën a way way Thione Seck waaw daal noonu laa ko gisee daal man wax dëgg yàlla bu ma doon ñoom it ñoom ñaar li ma moom laa leen di concert moom bu ma doon ñoom it du ma dégg waxi nit ñi waaw ñoom nan bokk ndey bokk baay comme ni ko ñëpp di defee li naan mbëri nan bokk ndey bokk baay waaye ñoom it musique saa ñoom it danoo war a bokk ndey bokk baay. waaw loolu moom booy xool am na lu nekk xamante ne nii xëy na man sama xam-xam àggu tamit wala tamit man mënuma koo xam ndax booy xool xëy na moom am na ñu ko dégg si waale ñu nekk si ñoo xam te ne jëlee fii dee bu fee ndax noonu mu tombee moom warta mën a nekk su nekkee rek am na leneen lu nekk suuf loo xamante ne nii ñun mën ñu koo xam am na ñoo xam ne ñu ngi ci waali di wax Sidi wala ñu nekk Sidi di wax waali loolu am na waaw ndax boo xoolee wooyu ni mu tombee bég bu bokk tamit mën jour mun génne tamit xam ne loolu daal am na ci xam nga ne Sénégal moom loolu mënu fee ñàkk te su fekkante ne yow da nekk nit koo xamante ne si tamit ah, da ngaa siiw comme ku ci mel ni Waly Seck ah, Waly Seck moom borom baax la Baye Fall la moom loolu ñëpp xam nañ ko ndax tey ji exemple moom boo dikkee rek da lay yaatal yaa a xam nga firi bu ko defee nag après boo ñëwee ñu yaakaar ne yow defarkat nga fekk fekk na yow yàqkat nga quoi bu defee après nga tisaare booy bi li war a génne nga dem jox ko Sidy Diop mu koy woy Sidy Diop tamit moom am na ay yóbbante ci moom ndax li gën moom moom mu mën a wuti son boppam comme quoi ni Wally Seck def pour dem moom xañ na sax ñoom ñaar ñoo ñoo bokk position bu ñu taxawee ndax kii Wally Seck dafa woy woyu papaam ak woyu Youssou Ndour ñun ñëpp xam na ne moom Sidy Diop moom woy jàmbur lay woy li ma nekk aussi ñoom ñaar nu bokk ndey ak baay nu bokk ndey ak baay bu ñu déglu fans yi nga xam te ñu mel ni man di jaxasee di wax loo xam te nii mooy loolu bu ñu déglu fans mën na leen déglu sax waaye bu leen déglu si yenn kaddu yi yenn kaddu yi ñagas yi moom lu fan si ndax mooy loolu képp ngay daal saxal tulu ngay waxee ñoom nag am nag seen xam nañ ne bëgg xam nañ noo bëgg ndey ak baay aar bi na rafet rek na naayis waaw musique gu démb de wax dëgg yàlla macha allah neex na de waaye musique gu tey wax dëgg yàlla ah mën nañ ko ah, jërëjëf maman dafa mel ni léegi suñu euh, émission bi mi ngi waaj a jeex ñu bàyyi la nga tàggatoo ak sénégalais yi waaw xam nga li may wax rek ñu gën a góorgóorlu mhm. man bëgguma ay xale yu nekk ci seen yoon di liggéey ñu di leen jaxase bëgguma loolu nañuy seet lu baax ñi di ko def tey bàyyi lu bon lu bon amul benn njëriñ ñaari artiste muy Sidy Diop di Wally Seck noonu lañu fi defoon jaxase fi Wally Seck ak Pape juuf mm-hmm. léegi Sidy Diop tëgg na rek ñu indiwaat taxaw am na loo xam ne rafetul ñoom mm-hmm. ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk seen aar ñun liñ ci am mooy ñum ñoom ñu bégal ñu rek yàqkat yi nañu arrêté ca dem toogi nële